jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne Mouniang production moo ñu fi woo tey fii ci arène nationale boole ki nga xamante ni mooy Rambo ak Caatu Kaasa Rambo nag ndeysaan moo nekk xale boo xamante ni yëmbal asegna lay jugee mu ngi daje xale bi nga xamante ni mooy Caatu Kaasa moom mi nga xamante ni mooy jugee écurie Tay Shinga grand combat baa ngi noonu mbokk yi toftal ci ay combat yu neex ay combat espoir yoo xamante ni xale yaa ngi fi mais dañuy dugg wan leen lépp loo xamante ne xew na fi ci ambiance ci làmb ci cosaan ci lépp loo xamante ne day neexal làmb mbokk yi ñun la ak ci wasaare làmb kaay leen ñu xool ñaari mbër yi ana ñu kaay leen. Boy Kaza ngi noonu Boy Kaza nuyu naa la. Faña gaan. ay am jàmm. waaw sant yàlla bu baax. ay loo victoire laa indi incha allah. ci nan nga koy amee. waaw su fuleeg fay ak gëm li doon li nga yor ak gëm li nga yor. war na yàlla lu ñu liggéey Rambo waruñu tee ñu ñoo dañoo topp guddeeg bëccëg di entraîné entraînement yi métti yàlla def ñu am grand combat dañ koy fonk incha allah te bu ñu si géew gi ñëpp nañ xam ne combat bi dañ koy respecté. incha allah rabi xeex ak bëre ban moo ci sa avantage. ñaar yëpp mooy sama avantage man. ñaar lan nga ko gën a ñaar lan nga koy ñaar yëpp laa gën a bëgg. lu muy indi rek lu muy indi rek. tey ci moom laa jëm ci lan. lu muy indi. naka mu waayee baax mu waayal bu baax. waaw dem. waajal rek. waaw ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam mën naa leer naa incha allah rabi waaw. ndam ci nan nga ko mën a amee tey xeex wala bëri. si lépp laa ko mën a amee. loolu ah, adversaire nee na ñeme woo taxaw samp jaaga xeex ak moom tey ci biir. loolu wax la moom sax ko def ay mbokkam digaluñ ko ko ay mbokkam digaluñ ko ko. loo bëgg amee ndam tey ci combat bi ci lan nga ko bëgg a. combat bu daanu li mu si wax noonu lu mu laaj jox ko muy bëre muy xeex ñaar yëpp laa pare andi na incha allah lépp laa arrêté lépp ñaanu ma dara soxla ma moom dara lu ma soxla maa ko jëlee di sama bopp waaw. ay ca noonu. ndeysaan. Rambo ngoog barki sëñ Bamba. yow ñun gis yëguñu la ci suñu bopp. dañuy xeexal indépendance su mbër yu ndaw yi gisuñu la benn yoon. ëpp benn ñaata yoon. ñaata yoon woo naa la ba sonn. bu joxee rendez-vous doo ñëw. yow da ngaa bokk ci ñun. ñun dañuy xeex intérêt mbër yu ndaw yi. barki Serigne Saliou Mbacke li ñuy xeex du tout pour ñun. parce que niveau boobu ñun dépassé nañ fa. mobile niveau boobu dépassé na fa. man dépassé naa ko Kona noonu Agogo noonu. Gackou de noonu ñu fa nekk ñëpp mais li ñuy xeex pour suñuy rakk la. li ñuy xeex mooy mbëru ndaw yi. woo ma nag woo ma na leer. ñaata yoon ñaata woo naa la bay bëgg a dee pour wax la ci mais boo jugee fii na nga dem jëli suñu président mobile 2 mooy président association des jeunes lutteurs. dajaloo leen ngeen woo ma ñëw ñu toog waxtaan waxtaan bu yaat. waa kon deex na naa wax ak président. des na ci yow waaw deex na aja ji la. ond la fu sama xarit la. ndeysaan sama xarit la. cinquième combat de la soirée. confiance ak fils de Samsam fils de Samsam moo la ginnaaw ngemboo ngemb Lagos bi lu xonq li di feeñ moo takk morso bu xonq bi ci bopp ba confiance moom ngay jàkkaar lool moo ngemboo ngemb lu weex li ndeysaan moom la saafara bi bëri ci bopp ma ngay rokkas confiance ma ngay rakkos daan na ko fils de Sadio daan na ndeysaan fils de Samsam daan na confiance daan na confiance oh ndaysaan xale bi wane na boppam ndaysaan xale bi wane na bëreem xale bi wane na njàmbaaram xolal mbooloo mi mu àndal lii mooy làmb yoo déplacé mbooloo topp ay làmb ak yoog ay xale yi ñoo garaaw ndaysaan ah xoolal mbooloo mi mu indi xoolal fii de sam-sam mbooloo mi mu indi xoolal lii xale baa ngi nii ndeysaan oh làmba gi ndeysaan ayca mbokk yi ñu ngi noonu ci sixième combat de la soirée fils de Bargny ak bébé Jordan ndeysaan ñu ngi noonu bébé Jordan ak fils de ñoom ñaar ñu ngi noonu di xeex jàppante nañ bébé Jordan moo ngem boo lu Lagos di moo xaw xal rek fils de Bargny moo ngem boo ngem lu wax la bébé Jordan takk na ko dina ko daan doole doxut jàmm war na la ndomba da lay daan daan na ko daan na ko ndeysaan bébé Jordan daan na ko ndeysaan ndeysaan bébé jo bébé Jordan daan na. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi mu nekk combat soir boo xamante ni combat bu neex la bi mooy septième combat de la soirée dox ci diggante Modou Boy numéro 2 ak Rëm Junior Rëm Junior nag moom moo leen won ginnaaw moo bari takk-takk yi rek bari fas bari gàllaaj mooy bërëg Modou Boy numéro 2. Rëm Junior nag mu ngi nekk ma yëmbal mbooloo ndaysaan xale yëmbal yee ko indi ndaysaan moom Rëm Junior waa yëmbal gépp ñëw nañ ànd ak moom turandoom Rëm gis naa ko mu ñëw ci mbooloo mi di ko jàppale waaye Modou Boy numéro 2 mu ngi nekk écurie jëf soo ko nekk saan faw nga jëf soo ko nekk <laughs> ndaysaan boo jëfee nekk boo jëful nekk ko teegaa jëf soo ko nekk kon ndeysaan yëmbal mbooloo arbitre bi ak leen laaj dox ci diggante ndeysaan gis nga Rëm Junior am na benn avertissement ndeysaan Rëm Junior am na benn avertissement arbitre bi laaj na Modou Boy laaj na Rëm Junior arbitre bi sifflé na ndeysaan Rëm jokkaas na Modou Boy numéro 2 ak Rëm Junior saan ñoom ñaar a ngi noonu Rëm moo leen féete ndi joor Modou Boy moo leen féete càmmoñ ñu ngi lewaatoo di xoolante ci bët ba tey dara xewagul ñoom ñaari xale yi rëm daa bëgg a jeexal combat bi ndeysaan ma ngay cokkaas waaye moo du koy déglu ñoom ñaar combat boo xamante ne taay bi tolloo na poids bi tolloo na kon daanaka ay naataangoo ñoom ñaari xale yi ndeysaan gis nga rëm rëm cokkaasaat na reculer da ko bëgg a aspirer pour du ñëw Modou booy ak rëm rëm dóor na boobu contré na la bu la daloon du baax aja sa garde bi fayu na ndeysaan ñoom ñaar dinañ xeex dóoraat na ngay xeex booy baa ngay dox ci koom ndeysaan Modou booy ak rëm siñoor du yomb rëm cokkaas na Modou booy ngi dox ci koom dóoraat na mais dóor yu baaxul ndax benn coup dalut ñoom ñaar ba tey benn coup dalut dóor na rëm Modou Boy fu muy mujj Modou ak rëm 2 ndaysaan rëm dóor na Modou Boy numéro 2 ndaysaan arrière na dugg ci digg géew bi ñoom ñaari xale i génn nga bi nee na la laale leen arbitre moom ëffal rek arbitre eh dóor na coup boobu dal lu ñu nar uppercut dina am déet tàqali ko waat na ñoom ñaar rëm cokkaas na dox na ci koom lu mu nar toj na mu ngi koy toj arbitre atel ardo toj atel deret ji bëri na deret ji bëri na arbitre bi xanaa gisul lii atel arbitre atel lii arbitre atel arbitre atel ndeysaan ña ngay xeex waaw laa ilaaha illallah Ardo kaay wuyu ji ndeysaan Modou Boye numéro 2 day dem Ardo loolu jeexalul combat bi loolu jeexalul combat bi laale mooy baaxu lii bu doon lambi jigéen sax jeex na ndeysaan arbitre sifflé waat na ndeysaan Modou Boy numéro 2 ak Rëm Junior ñu ngi noonu Modou Boy demoon na ci ardo ba dellu si waat Rëm dóoraat na ko fa ay waay mbëre soxor fi mu dóor mu toj fa la koy dóoraat Rëm Junior ak Modou Boy ndeysaan Rëm Modou Boy dox na ci koom jàppante waat nañ dóor na ko tànk ndeysaan dara tàngay wàcc dolliwaat na ko fa ndeysaan jëli na tànk ba da ko bëgg a jàpp ndeysaan Rëm Junior a ngay dóor Rëm Junior xam na fi muy dóor ah daw nañ jàppante ñoom ñaar Modou Boy numéro 2 combat approché moo ko jege moo ko gënal day demaat ardo day demaat ardo day demaat ardo Modou Boy demande na Ardo ndeysaan Modou Boy njàpp na njàpp bu soxor <laughs> xale yi ñooy bandi ree na xam na ne R4 dafa woyof dafa franchir ndeysaan R4 dafa franchir boo fa dóoree rek day toj moo tax xale ba gis nga bañ ko ko dóoree mu toj teewul ma ngay ree di dem ci cimikaay ba ma ngay dem ci Ardo Ardo moom ah atte nañ combat bi non arbitre bi daa mel ne jox nañ Rëm Junior victoire bi ndeysaan ndeysaan Rëm siñor am na ndam bi. ama nuyu naa la. waaw jàmbaar ñu lay fay bu baax waaw am jàmm bu lay indi Thiès sax. naa non sama jëkk yi nu ma ñàkk may ñëw. nu ngeen ko waajale. ama seen a ngi noonu. Ndeysaan ama seen a ngi noonu. Ndeysaan sëtu Samba Xoyaan baa ngi noonu. Ndeysaan wane na ni làmb. des fois ay xale topp sa ginnaaw. di si nga ànd ak ñoom dooleel leen ama seen tey dañoo gis ci bis bi fi mu la toll ndax bu ñu nee caatu Casa day bëre tey nga déplacé wu ñëw ànd ak moom soutenir ko wane ni combat bi bis du tuut borom lay tolloo loolu lan la non sama doom sama doomu nijaay la waa deret la waaw sama doomu nijaay la quoi waa tey bisam sama bis la waaw papa nekku fi ma maa fi nekk foo ma teew nan ngeen ko waajale waajal ko ni préparé ma combat rek parce que ñu ma préparé ñoo ko préparé waaw loolu ci nan la mën a gagné combat bi tey. non bëre ci lépp ah. pare nañ daal xeex day ñaan rek. xeex non day ñaan yàlla suñu borom may ñu rek incha allah. yow foo toll ama seen gars yi ama <laughs> seen du dara. déedéet surtout sax mo xëyaat bi Eumeu Sène combat yi foo ci toll. ngi waaj a nag nag. mu lay contacter. mu nga ne ma jëlal sama numéro. bu doon tournoi a ngi mu saafonte def la mu war a def ñëwaat. mu ngi noonu nag ñaari mbër ngeen gis géew gi bébé Pafal la ak Garga. Bébé Garga moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen lu rouge li dina koy brousse kenn xamul nu ko brousse nag mbëri dañuy tooyandoo seen biir en fait gis Eumeu grand champion borom tàcc nga. Garga Bébé Fall. avertissement pour bébé Pape Fall mu mel ni premier combat spécial bala arbitre bi nee na ko ndax pare ngeen laajte na nee prip bëral leen yéen a ci des Bébé Garga bee Pape Fall door na Bébé Garga jël na tànk ba Bébé Garga daan na koy nengeñ Bébé Garga Pape Fall bébé yata sa tay bébé Pape a ngi roqas ci suuf Bébé Garga bébé Pape Bébé Garga jàpp na ci ngemb bébé Pape mu ngi yor pour jàpp laa ilaaha illallaah war na ko nomba Bébé Garga war na bébé Pape Bébé Garga war na bébé Pape Bébé Garga lum nar lu xew lu nar la ilaha illallah Bébé Garga daan na Bébé daan na Bébé Pape Fall combat spécial première Bébé Garga daan na Bébé Pape Fall ngi doon nag ay supporteram jug nañu ànd ak mbër mu daan dafa neex Adama yaay filmé lu ne Bébé Garga écurie de lutte Balla Gaye numéro 1 daan na Pape Fall écurie yëmbal premier combat spécial Boy Seye nuyu naa la maa lay fay Baye Djili sant Serigne Touba rek ay waajal combat wala amago amaguma combat rek baa ngi samay entraînement rek am ndax fi teg sa bët dafa kawe waa parce que borom birigu mbagg boo gis grossiste moo nekk si xel mi Kër Masaar lañ dëkk Kër Masaar ron yaakaar ñu comprendre nga ay kilifa nekk ñu ginnaaw dañu war a bëreeg ñuy mag looloo waral ma bëgg ñooñu noonu bëreeg ñoom. bon du ma tudd benn tur ku ma làmb boole rek pare naa pour bëreeg moom. la fan yee nga génn def sorti nag Goro Sock Goro Sock moom yee ñaar du combat. Goro Sock du ma waxaat ci ay waxam du mbër. tapet la suq du mbër du ma waxaat ci ay waxam déggoo ma la du ma tudd benn turu mbër. mais promoteur daf laa seet si. wala boog am na promoteur bu bëgg sa combat yow ak Laasana. loolu lan nga ci Laasana sama sama grand frère la. ci làmb def na si làmb loo xamante ne bii defuma ko si làmb ñi mu bëreel bëreewuma ak ñoom. comprendre nga am na promoteur bu ne dafa bëgg suñu combat mu ngi yëdaale. waxtaan naa moom waxtaan naa ak man mais eggagul ku ci nekk eggagul ci sa staff man combat bi bu ko la bu ko bu ko démarré suba suba suba. trente secondes mu taxaw si man. waaw loo wax ci xale bi. waaw mais xale bi champion la sama sama combat bi may bëree olympique ngor moom bëri na ci man maa bëree grand combat bi mag Babacar Diallo moom mu bëree spécial bi xaw ma deuxième combat bi kon kii maanaam mën naa ko may chance loolu du dara yéen daal fii la ñu fekk ñu ñaa ñu taxaw. mu ne suñu combat dafa mel ni war na neex ma ne ko ah man moom maa ngi nii damay may booy chance yéen dafa yaa dama bàyyi. par des fois nga ne bàyyi nga par des fois nga ne bàyyiwoo mais soo duggee ci làmb sa sa yaram day day bëgg takk ngeen bu bëre am naa pare naa pour bëre pour bëre moom pare naa pour may. li nekkoon ci laasana mu ngi ci laasana ba tey laasana bu weex bu os bi ñu xamoon. non loolu doo ko wax gën ngaa tooyal xaftaan. non loolu doo ko wax loolu doo ko wax ay laasana li nekkoon ci moom maanaam maanaam loolu jarul wax nañu bàyyi ba combat bi taxaw ñu def signature maanaam ñu dugg ci biir géew bi ci la ñuy xam booy yi la ñuy xam ne. Euh, maanaam parce que par exemple damay dégg ñu naan màgget la mag la wala yooyu mais yàlla baax na nañu bàyyi ba combat bi taxaw rek. ah jaaykat dañuy gis laasana bu ñëwee day takk ay sër dummoo doomu taal bi wala puudar bi. di bàkk bàkk bàkk cosaan. ñu ne xam naa dem na retraite. loolu moo tudd ren di seega loolu moo tudd ren di seega léegi nag maanaam soo gisee may def loolu euh, dama man ci côté bu ne dama man ci bëre mënee ci bàkku moo waral may def loolu. damaa mën a ci bëre mën a ci bàkku moo waral may def loolu mbër mbër bu foorul mbër bu foorul ci yenn yi xëy du mën bàkku waaw combat bi loo ci wax li wax na li gën a li ma wax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili Mbacke di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène ñoo ñoo may ñaanal di wax ne combat bi daal moom mii ci moom la des ci bu kii laasana nee na ma Babou Laye woo su waxee lu jaar bu soobee yàlla mekk ñëw di face à face <laughs> fii laa ko waxe fii laasana bu waxee lu ma woo Babou tey ci ngoon su waxee lu jaadu mercredi ma jox leen avance ñu ñëw def face à face pour dem Iba Mar. lan la tuddee wàllu leer lan la tuddee wàllu leer mooy lu raisonnable sa diggante ak Boy Seye numéro 2. ah kon si si wàllu prix. waaw yàlla baax na. lu raisonnable parce que xam nga li ngay jar ñun xam nañ li ngay jar amateur yi xam nañ li ngay jar. amateur yi man la lay jar yow yow yow yow yow yow rek sa bopp man la lay jar. xam nga sa kase. waaw mais da ne xam nga kase mbër yow xaaral da ne man xam naa lu may jar. nga ne yow xam nga lu may jar. moo tax may laaj di la ko delloowaat ne la ndax am yow. man la jar. su ma doon peese li ngay jar. mooy laasana mu dugg si. bàkku laasana mu dugg si taxaw ci digg géew jar na loo ko mënti fay. mais la amateur yi nga xamante ni ñoom ngay servir tamit jaral nga leen lu ne ci làmb lan ngay jar yow. li may jar non man même mën nañ ma fay 10 sax ça dépend non dama ne même mën nañ ma fay 10 sax mais day dépendre ci euh, ci kii may waxtaanal ñu déggoo ci kaddu rek waaw man moom pare naa pour bëree pare naa pour may booy bi sens parce que man su may may sens damay may booy yoo xam ne booy ñu xam la ma may leen sens. kon pare nga pour bëri booy. non yàgg na. père Thioune. tey kan moo lëmbe. yow yow yow yaa lëmbe eh. yow rek yaa fi lëmbe eh, yow rek yaa fi lëmbe mais eh, Père Thioune nag namm nañ la gis nañu woyof gi nga xamante ne yaa ngi koy def ci làmb vraiment di liggéey ci làmb surtout di di xool ñi nga xamante ne dañuy lëmbe ngay lëmbe seen kaw mais loolu mooy àddina et puis xam nga tey li tax ma kontaan vraiment booy ñëw nañ tey ci làmb ji amul benn dégât tojuñu sées defuñ lii lañ soxla vraiment mention spéciale lii mooy àddina yaa ngi waaj a chef de l'état waaw di nga dem bu soobee yàlla buñ fi yàlla bàyyi. am nga mbër am nga mbër. waaw. allah yow. <laughs> am nga mbër bu mat mbër. yow yaay sama mbër. yaa ngi bëre kañ. nii nga def nii. continuer sur cette lancée rek. waaw affaire bi moom nii la rek petit à petit l'oiseau fait son nid et c'est en forgeant qu'on devient forgeron kii yël ndànk rek day ñëw xool del ko fi rek day ñëw. waaw sama papa Thioune commandant ma koy jaajëfal bu baax. Adama ndaysaan arbitre bi ngi war a siffler ma ngi koy waaj Sitor Ndour la le grand arbitre kenn du ko présenté ci réew mi combat bi ngi noonu dox ci diggante Onga Ndiaye numéro 2 ak Seck ak Boy Seck Thier yaa wóor <laughs> kenn du yow bàyyi jili ndaysaan lay màggal bu baax borom wasaare borom grand théâtre TV loo wasaarewul baaxul bàyyi jili yaa ñaari xale yaa ci biir géew bi. ci kan diggante Ongué Ndiaye numéro 2. ak Boy Seck. kan mooy Ongué moom lañ jàkkaarlool moo ngeen moo ngeen mu vaccin waaye arbitre àtte na lu xew. am na lu xew. waaw. ndeysaan Ongué Ndiaye. avertissement. Boy wala Boy Seck am na avertissement te dara xewagul. arbitre génn seen diggante ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. Ongué Ndiaye moo ñu wan kanam moom lañ jàkkaarlool. Boy Seck moo ñu woon ginnaaw moo ngi moo ngi lu weex la Baye Djili. Boy Seck ak Ongué Ndiaye numéro 2. ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo di xoolante ci bët ceer. waaw di xool ci bët di jàkkaarloo ci bët. di leewtoo ba diib ñoom ñaar. waaye kurpañ demagul coono amagul Baye Djili. waaye diggante combat bi dafa mel ni fausse garde la ak garde normale. waaw fausse garde ak garde normale bu ñu xeexee nga gis musiba. bu ñu jàppante nga gis jël bu gaaw ndax Ongo Ndiaye mi lu ma xamoon ci moom bu dañul bu jàppee mu jeex bàyyi jili dox na ci kawam. ñu mbaa kaawo du am. kaawo da rokas koy Ongo Ndiaye. rokas baaru daan da rokas kaawo. ci Ongo Ndiaye mi loxo yi xor la bàyyi jili. Thier ngay door waxoon nga ma ko. da koy takk de. da koy takk takk na ko. da koy takk da koy da koy bij. ndeysaan am nga Ndiaye lu mu nar. wala xaatar bi la tegal 16. ndeysaan. am nga Ndiaye booy fay. ndeysaan. ñoom ñaar jàppante na ñoom ñaar. ndeysaan booy sekk ak am nga Ndiaye. Ndiaye moo féetee à droite. ndeysaan. booy fay attention da koy biij na ko dina ko daan. da koy daan daan seer waxoon nga ma ko. dool doxul jaamu. waxoon nga ma ko. xale bi xam naa ko bàyyi jili. yaa wóor waxoon nga ma ko. xale bu jàppee mu jeex. yaay lamb waxoon nga ma ko. maa fekk xale fu mu bëree ma bari bàyyi jili. seer yaa wóor. ndeysaan Ongué Ndiaye numéro daan na ko ndeysaan daan daan na ko ndeysaan daan oh! xale yaa ngay ñibbi ku ci sa daan nga for say bagage wéy wéy la faxasu Senghor laaj na ay sixième laaj na arbitre bi sifflé na lundi 24 mai 2021 arène nationale Mouniang production dox ci diggante Rambo ak Boy Kaza Boy Kaza cokkas na Boy Kaza moom ngeen jàkkaar lool moo takk bande bu weex bi ci bopp Rambo boo la woon moo ngeen moo ngeen mu tent bopp ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi déplacé di demee wet ndeysaan ñoom ñaar a ngi demee wet Boy Casa dóor na boobu dal na Boy Casa dóor boobu dal na Rambo ngi dox ci koom Boy Casa daa jël décidé daa décidé pour xeexaw Rambo dóor na ko Boy Casa dóoraan na Rambo jàpp na ko jàpp la bëgg Boy Casa Rambo Boy Casa ngi dugg ko neexee di génn nu ko neexee Rambo fermé sa garde boo xamee dóor mu daanu dina am Rambo Boy Casa. Rambo tànk ndijoor Boy Gaza tànk càmmoñ ñoom ñaar tànk yi jegante nañ kuy jëli tànk moroomam ci kan lay doon Rambo mooy jëli tànk wala Boy Gaza mooy jëli tànk ñu ngi noonu ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Boy Gaza ak Rambo ñu ngi lewaato Rambo loxo yi jot na Boy Gaza dóoraat na day bàyyi ba Rambo wàccee garde bi mu dóor ci koom Rambo fayagul ba léegi ba léegi fayagul dinañ jàppante dóoraat na Boy Gaza dóoraat na Rambo Rambo dóor na Rambo dóor na Rambo dóor na Boy xeex lu ma kaawo lu ma la waxoon ma ngay Rambo dóor na Gaza fay Rambo dóor na ñu ngi korante plaqué bañ na door na ko bañ na mu ngi attaqué Kaasa attaqué na laa ilaaha illallaah kaawa dina am laa ilaaha illallaah ña xeex door ndeysaan Boy Kaasa ngay door Rambo fay dañuy taxaw ku ne jël na ku dañuy taxaw waaye namm nañ lii xeex bu sax door mu daanu dina am Kaasa Rambo jëli na sol na ko Boy Kaza daw na jëli dafa sonn Boy Kaza ak Rambo ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar <laughs> ay làmba ngi làmba ngi ñoom ñaar lii mooy bu dee xeex la xale yi joxe nañ ko ñoom ñaar weccante nañ kurpañ arbitre bi day àtte kuy dem ardo wala am na protestant signe de fatigue protestant Boy Casa yàbbi na protestant bi Boy Casa yàbbi na protestant bi da ngay jël avertissement sifle waat na ndaysaan booy Kaasa dem na ardo ba ñëwaat diggante ba Rambo Rambo moo leen féete càmmoñ booy Kaasa féete leen di joor ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ba tey dara xewagul waat waaye dana neexaat ndax xale yi danañ xeexaat xale yi danañ bërewaat waaw mu ja neexaat <laughs> waaw waaw ndaysaan Ndeysaan Boy Kaasa ak Rambo ñu ngi noonu Boy Kaasa cokkaas na Boy Kaasa munoo jiital pied droite munoo jiital pied gauche di sànni droite dafay sore door nañ ko daw na jàppante jàppante na ñoom ñaar Boy Kaasa Rambo ñoom ñaar ku ci nekk fi nga jàpp baaxagul. ma ngay xeex Boy Gaza Rambo ndeysaan ñu ngi noonu door na pekkut door na benn moom Rambo du yomb ñoom ñaar wicci na ko mu bañ lu ñu bëgg ñaar Rambo Boy Gaza door na pekkut ci suuf coup bi daal na KO KO eh Rambo bi jàmbaar la mais Rambo mu ay coups yu métti ah ndeysaan moo lay wan ni bëre jàmbaaru koy def <laughs> wallaay Matar lamba gi ndeysaan ñoom ñaare gi ci ba tey arbitre bi day atte waaw waaw bàyyante leen waaw waaw demal ardo demal ardo ànd leen wéy lii lamb supporter bee jug na ñii jug nañ làmb gi sama <laughs> xol sedd na <laughs> waaw Modou Anta lii laa bëgg. doorante ba yaa soxor. xol sedd. yaa soxor. ay millions lañ leen fay. raak ba dem Anta nga ne sa xol sedd na yaa soxor. waaw waaw. looy saan. Ndeye Mbacke xanaa sa xol na. lii dafa neex xale yaa ngi bëri ñu ngi xeex ba jiili. Anta deret ju bëri na. kañ ñu dem la ko wax demal ma dem. jigéen la bu bu gisee deret day jooy. waaye yow soo gisee deret sa xol day sedd. sama xol day sedd dafa ne bërëb bi neex na lii mooy làmb naam mbëre am xeex. ndeysaan làmb ngoog. arbitre bi. laaj naa yu si na si Ndour mooy arbitre bi moo sifflé dox ci diggante Boy Kaasa ak Rambo ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ba tey ndeysaan waaye kenn du laat Diop <laughs> ay waay jox ko géeja waay gi mooy njariñ ci seros bi ñu ngay xeex jàppante lañu ndeysaan Boy Kaasa ak Rambo ñoom ñaar jàppante nañ dara xewagul laat Diop moo gën ci seros bi moo gën ci Parcelles Assainies moo gën ci Guédiawaye moo gën ci Golf Sud. Ndeysaan laat sëñ Abdoulaye Mbacke lañ la duppee gaynde yoon bi <laughs> ñu ngi noonu ñoom ñaar ma ngay door bëggu xam nañ ko ci Lat Diop bëgg sa réew xam nañ ko ci laat Diop bëgg a jàppale jeunesse su réewam xam nañ ko ci moom Lat Diop Ndeysaan mu ngi noonu Papa Ndiaga waxal Lat Diop Sénégal bëgg nañu ko de waaye première tranche 1 ba 6 mësuñu fàtte ña ngay xeex uppercut bi jolli na ñoom ñaar du yomb combat bi mbaa dina jeex Rambo ma ngay xeex oh waay gàllaaj yaa ngay tagg waay daw na jëli ko ndeysaan booy kaasa jëli na ko caxabal da koy daan daan na Rambo daan na Boy Casa combat bi metti na ndeysaan combat bi metti na ñoom ñaar joxe nañ ba sonn ñaari xale yi ndeysaan Boy Casa ndeysaan il n'a pas démérité moom Boy Casa joxe na la waroon joxe ñaari ndabay dugg waaye benn ay génn. ku ay ku si nekk dem nga ardo mais gis nga dama jàpp ngemu li ma jàpp ngeen mu fëgg kuku mu siggi ma xëj ko dëj ko mu toog. dañuy gis à chaque fois moom dalay aspirer pour nga ñëw ci xeex bi mais saa yu ko wuyusee dafay mel ni da nga koy wuyusi ci xeex bi. waaw dama koy si parce que moom euh, li mu doon xeex gëm ko moom li mu bëggoon dóor ma ma juum mu daw rappel ma chaque jour dama koo xaar foofu rappel na ñaari yoon bu ñëwee sa fan may fekk mu xam ne fii baaxut. daan nga booy Casa foo jëm. Ndiaye ba Zapp laa bëgg ngeen jox ma ko.